nit ci jamono ju ne da nga war a xam lan mooy farata lan mooy sunna lan mooy afdal bu farata jotee nga bokk fi dem def sun sunna xamal ni eh, amoo dara wala amoo lu bari ba ñu sénégalais yi réew mi la ñuy xaar ci ñun tey di ko xaar ci ñun dans deux ans di ko xaar ci ñun dans cinq ans mooy lan la ñu def ci réew mi. C'est la sénégalais yi di xaar Les sénégalais yi nag ëpp nañu Pastef pouvoir Ils sont sympathisants moitié ci ëpp parce que non la politique di doxee dans tous les pays du monde bëri Sénégalais ay sénégalais yoo xam ne faruñu ci ont parti une carte membre benn parti mais dañuy seet d'une élection à une autre ñu seet lan moo leen doy li ëpp ci ñu voté pour nous en 2024 boo en 2029 keneen la voté wote lool 2019 keneen la voté wote lool 2017 keneen la voté lool donc il ne faut pas qu'on se trompe de perception nañu savons que... lañ ñu dénk ëpp na parti politique donc suñu dénkoon càmbaraguñu réew defa defaguñu état des lieux bi xamuñu lu baax ak lu bon xamuñu yàqu bi fan la toll ñu bàyyi loolu yépp ci mbirum parti politique defe naa nañ ñu gaaw jëppi dégg nañ ñu ndax par essence sénégalais mo impatient ci ñaari weer ñetti weer nit mun a taxaw ne déggatuma gaay gisatuma gaay won nañ ñu gannaaw waa gars yi ci lan la ñu nekkoon ña ngay xëy fajar ba 2 heures du matin nekk ci li tax sénégalais yi wóoluñu ci loolu la ñu nekkoon loolu doo ko fi bàyyi naan maa ngi accordé audience à des militants suba ngoon bëgg lu neex militants yi du tax ñu def ko ndax nag bu ñu fàtte suñu contrat dans le parti politique mooy on a toujours été très clair avec les militants chaque chose en son temps kon jaadu wonna ci wèr yoy wessu te jeexagul sax ñu sëgg ci lool. Yalla may nañu ñu liggé ci lu ama am solo dégg na ñen ñi naan amuñu programme ils ont vendu un rêve au Sénégalais <laughs> dinañu gis ci fani ci ñetti temps nak ndax ñun luñu ñu def dañ ko tek ci stratégie suñ leen les ben te non la mës a doxee xanaa léeg-léeg nit ñee xaw a souvenir rek waye ni ñu doxalee ba egsi ci élection ba yalla jox ñuko rek war nañu xamni ñun duñu ay como te dañuy liggéey tek ko ci temps tek ko ci stratégie te non lañuy yoré état bi motax ñu ngi ci temps évaluation état des lieux te bu ñu sottee ba Sénégalais fi ragal na ñoo xam dootuñu génn ci réew mi de dootuñu jox ci mbedd mi moo tax wax ji jaru wala dañoo sentir ni mu ngay ñëw ñu gaawantu njëkkante télé yi takk seeni rajo waaye jaru dinañu wax Sénégalais fait chiffre date bu nañ loolu benn temps la am na yeneen ñaari temps yu ci tegu loo xam ne je ne vais pas vendre la mèche waaye lépp ci semaine yi rek la ci semaine yi rek moo ko waxee nag xam naa xam naa ni am na am na ñu dul nelaw tey ndax xam nga man yàlla may na ma lu tuuti sama diggante gaay yi du leen déglu duma leen seetaan toppatoo ma lu ñuy def waaye defe naa suñu xëy soo bëggoon jot dégg naa sax samay njàngal la ñuy wax léegi ma ne ah gars kon tiit nañu njàngal soo ko moo leen dese <laughs> kon lépp dañ koy teg ci yoon ak ci temps parce que nag dañu xam suñu responsabilité de GM Info TV